رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى فإنه في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال الأقوال والأفعال هو عين التقوى الذي ينال الله قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ومن أهم ذلك الاستنان بسنته في عيد الأضحى الذي هو أعظم ذي واشكروا زمنا إبراهيم الخليل حيث أمر بذبح ولده إسحاق أو إسماعيل أو فري بالذبح الجليل فصارت سنة باقية إلى يومنا وهي أفضل من الصدقة والإتق وقيل بالوجوب فمن تركها وهو قاد حتمة وتجب بالنذر وبالتعليم إذا التزمها بلسانه وبالنية إلى الشراء على المعروف والمأمور بها مر مستطيع غير حاج بمنن والمستطيع من لا يحتاج لثمنه في العام عند مالك ومن هو عنده ثوبان احدهما يكفي بعض الثاني وشرطها ان تكون من النعم والافضل الطعم ثم المعز ثم البقر ثم الابل والسمين والفحل والاقرب افضل من غيره واقل ما يجزي الجزاء من الطعن والثاني من غيره وهو من الطعن ابن سنة وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ما له سنة فدخل في الثانية ومن المعاصي ابن سنتين ودخل في الثالثة ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة ومن الكبر ما له ست والنهي عن العرجاء والمقصودة القرن إذا كان يدمن والبشمة والمقطوعة في والذنب والصعماء وبني على يعني الخرقاء والشرقاء هي المشقوقة في الأذن والمقابلة وهي التي قطع طرف أذنها من مقدمه والمجاورة وهي التي قطع طرف أذنها من مؤخره ووقتها اليوم الأول من أيامها الثلاثة بعد صلاة العيد ودفع الإمام وينبغي أن يبرزها إلى المصلي فإن لم يفعل في في في إجزائه ممن منزل عرف قبله كولاني واخر وقت الذبح واخر وقت الذبح من غروب الشمس من اليوم الثالث ويتولى ذبحها صاحبها وان كان امراه فان استنابت وهو قادر اجزاؤه ويسمى الله صنع فان عكس استناب ويحضر وينوي ولا ياخذ لا شيئا في نظير عمله وهو امر الذبح امر الآلة على حكمه والمدجين ويستغفر ويسمي الله عز وجل والسكين يمرها بجهل ويضع في المنبع بحيث تكون الخرزة إلى الرأس ويقطع الحكومة والمدجين ولا يجوز بيع شيء منها ولا أن يواجر ولا يبادل وقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ينظران في سواد ويبركان في سواد ذبحهما بيده الشريف صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله الله أكبر اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي وعنه عليه الصلاة والسلام عظموا ضحاياكم فإنه على الصراط مطاياكم وعنه أيضا ما من عبد توجه ابنة فتيل القبة إلا كان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات في ميزان يوم القيامة وعن ابن عباس مرفوعا ما من صدقة بعد صلة الرحم أفضل من إراقة الدم وفي الحديث يتجلى مولانا المشهور وجهه بالتكبير إلى أن يجي للإمام ويقوم الصلاة ومن جاء من طريق فليأتي من طريق آخر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأنفقوا في سبيل الله واعلموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق واحفظوا الصلاة في الجماعات بطهارتها وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله أكبر الله أكبر الله أكبر maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom mooy buur bu tedd bi nga xam ne moo xéewalal jaam yi xéewal yoo xam ne ay xéewal yu toftaloo yu bëri la def yàlla moomu di suñ borom tabaraka wa taala mooy alwaahidul ahad mooy ki nga xam ne kenn la ci lépp ci jëmmam ak ci turam ak ci meloom de ak ci jëfam tabaaraka wa ci ci taaram bu ci mbooleem bés ak guddi yi de yàlla moom mooy ñëwante kon bi suñ borom tabaaraka wa taala mooy xéewalaa kon bi de ki ci kàttanam de yàlla moom mooy ay xayul mooy ki xam ne moo dund rek kenn du ko mo moom te ku dund rek mo la dundal tabaaraka wa taala mo taxawé rek mo mangé mo mo moo mo rek tabaaraka wa taala mo moy al hadi moy jubale jëm ci waaw yoonu njub def mo ki nga xamné lepp lu sos mo mo la sos mo yalla tabaaraka wa taala mooy ki nga xamné lepp lu jeexi mo koy dalo ci cosaanam rek te mooy jëmmam ju tedd ji def yalla mo tabaaraka wa taala moy jéggalaakoon bi jéggale bàkkaar yi de mooy ki nga xamné moy borom ciofel bi nga xamné ku ko bëgg taxe nga def mooy borom aras bu màgg bi kooku mooy faal li maa ngi bi mooy ki nga xam ne lim namm rek mooy am lu namm doon tabaraka wa taala allahu akbar yàlla màgg na yàlla màgg na min kulli kabir ci lépp loo xam ne màgg na rek yàlla moom tabaraka wa taala nag mooy aji xereñ ji mooy aji kàttanu ji la tabaraka wa taala maa ngi koy sant moom yàlla tabaraka wa taala yàlla mi nga xam ne tudd naa ak sellam di ko gërëm di seedane moom Muusa yàlla mooy sama borom moy seen borom moy borom asamaan yi juróom-ñaar mooy boromi suuf yi juróom-ñaar yàlla tabaraka wa taala moy borom mi mbindaafoon yi rek yalla mo nak ak magay ak ak kawe yëkkati ko ñaar na ko ci asamaan yi ñaar ak suuf yi juróom-ñaar bur bu tedd bi moy bur bu kerem bi moy bi yëkkati ki moy nga xam moy borom aras de amul lenn leuf du na ya ngi sabbaal yàlla de waaw waaye nak borom xel yu sell yi ñooy fa loolu de képp ko xam-xam ku rëy ತುಮಪ್ಪು ಕಂಕಂಬಿಲ್ಲ ಪೇಟೆ ಕಂತ ಯಾಲ ಮೋ ಪುಜ ಕಂಕಂತ ಬಾರಕ ಬಾಲ ತುತ್ನಾ ಸೆಲ್ಲಗ ಯಾಲ ಮಾಂಗಿ ಸಂತಿ ಯಾಲ ವಾ ಮಾಂಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಪೂರ್ ಬೇಲು ಜಾಮ ಗೊತ್ತಿ ತಪ್ಪಿ ಕುಮೈ ಯಾಲ ತಬಾರಕ ತಾಲ ಯಾಲ ಮಾಗಿನಡೆ ಮಾಗನ ಮಾಗಾಯ ಒಮ್ಮೆ ವಾ ನೀ ಅಸಮಾಂಡೈ ಯಾಲ ಪುನಲೋಲೆ ಮಾಗಾಯ ಒಮ್ಮೆ ವಾ ಅತ್ತೆ ಇದೆ ತಲು ಕಂಕಂ yéegee yóbbu ñu ñun ñëpp ak yéen aljannatul firdawsi da xam ne moo gën a kawe ci aljanna yi rek gannaaw bu ma santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li moom la mbir yëpp leer yëpp maqaama yëpp dajee moom ci yonent yëpp ak tasaaroo ci ci moom la dajee sallallahu alayhi wa sallam rek yonent boobu nag waaw mooy nga xam ne mooy secret yi mooy leeru mbindaafoon yi mooy jëmm jëmmu mbindee bi de mooy ki mooy sampal yàlla mooy màggal yàlla ca meloon yu màgg yi moom yàlla yu nëpp yi ak yu feeñ yi ak yu yu yi de moom yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ay nu rahmati mooy jëmm yërmande yàlla rabbaani yi yàlla mooy kii bëggal waaw dëgg la jëm ci yiw ak ak jàngal moo ngi ciy waaw jëm ci safara ak mu moytu yàlla mooy ki nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mooy bëkk bi yàlla bi xamatul ki nga xam ne moo wéetal yàlla ci mbooleem xeetu wéetal yàlla yi rek kooku mooy kan mooy suñu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo kaste yonent wilaayatu mooy ki nga xam te jëli yar tamit moom la yàlla mu njëkk amal waaye moom la mujj amal sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne mooy waa jëmmi waaw ñu sos mbir yi rek ci yërmande yàlla ak gërmande yàlla yàlla mu màgg mu tedd mi jéggalaatoon tabaaraka taala waaw ñu ngi ñaan nag di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal képp ku dimbale yonent bi sallallahu wa sallam ci dëgg ci alamul xayb ak shahadati lu teew ak lu fàddu ak mboolem ñi ko dëggal waaw ci borom xam-xam yi nga xam ne ñuy jëfee seen xam-xam waaw yàlla gën jaar ci jihaad allahu akbar allahu akbar allahu akbar màggaay ñeel na yàlla waaw sell ñeel na yàlla lu bëri maa ngi sant yàlla waaw ci suba ak ci ngoon de subhaana rabbika tudd naa nga xam ak ci li nga xam ne ñu ngi la koy melal utal bokkaale ñi ne am nga jabar ñi ne am nga doom ñi ne am nga njënd waaye maa ngi muslu yàlla ci baat boobu may dégg te wax ne yàlla ëpp na loolu loolu du dëgg daay fen la de yow rek yaay yàlla rek waaw julli ak jàmm yàlla na sax ñaan yonent yi alayhi salaatu wasalaam gannaaw loolu nag te yéen jàmm yàlla yi da déglu walaate bi da ngeen am ne yàlla tabaaraka wa taala moo ñu bind de yàlla moom nag nga xam ne moom moo ñu bind mooy ku tedd ki de mooy ku nga xam ne waaw moo amal lépp de mooy ki nga xam ne mooy ki moom bi moom de yalla mu màgg moomu nag bind leen bind ñu bind leen ci lu dul foore bu fokk mu ko nek yalla daf ñoo bind ngir fokk yalla fawul de yalla tabaraka wa taala moy ki nga xamne moy ñu bind ci leeram de moy ñu bind ci magaan moy ki nga xamne mo bind ci jinne mo bind nit ngeen ñu jaamu ko ak gëm ko rek da ngeen bëssal seen gëm yalla yéen ñëpp dañu wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah dañ sàkku ndollal ci yiw ci bërëb bu nekk ak jamono ju nekk bokk na nag ci li nga xam ne luñ feddali la mooy topp ci wax ak ci jëf ndax moom yonent bi sallallahu ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa na ne ragal yàlla mooy lépp yàlla xam ci alquran ragal yàlla ci la amee yàlla suñu deret yi ñuy sotti di ko tuur ak yàpp yi ñuy jël di ko saraxe wala ñu di ko lekk loolu du mooy may ragal yàlla ragal yàlla ci xol lay nekk rek yàlla nee na yàpp yi ak deret yi du may mukk ragal yàlla waaye xol xol bu gëm yàlla mooy may ragal yàlla bokk nag ci li sunna bi sallallahu alayhi wasallam ci tabaski mooy ne tabaski moo gën a màgg ci xeet yi sos ci xeet yi lislaam dale ko ci suñu baay Ibrahima alayhi salaam yonent yàlla ci jamonoom ba bés ni tey de ndax yàlla moo ko digaloon mu rendi doomam ñu ñuy wax am ñu ne Ismaayila daal di koy jotee nag ci am xaaf muy kuur bu mag moo xam ne waaw mu nga bàyyi ko aljanna de <clears throat> loolu moo indi tabaski de ba mujj nekk nag sunna soo xam ne sunna su des la ba pencam yàlla de bokk na nag. waaw ci li gën ci sarax ak jot de wax nañ ne lu war la képp koo xam ne nag bàyyi nga génnee xarum tabaski te fekk yow mën nga ko bàkkaar nga rek <clears throat> war naa nag ci nësal képp koo xam ne dañ laa nësal ne dañ ko def moom it dafay war ci yow boo amul sax boo amee wala ko matal de su fekkee danga ko warul sa bopp rek yàlla toggul nag ko mënut lu mënut de kon nag lépp ci làmmiñ lay doon ak yéene de waxtoo koy jënd waaw dañu xam nag ne moom moom la ndigal sharia mooy góor boo xam ne nii am na kattan te nekkul ajiwul ajiwul màkka nekkul minan te ko te du soxla njëg lii kooku moom moo war a génne xalam tabaski de waaw ci ngiru imam Malik kenn na ci xeet yi de ci ngiri xeet Malik xeet mi de shariatu dégg nga de képp koo xam ne nag am nga ñaar yëre waaw dana la doy de bu la neexee ne jaay benn ba sant bi nag mooy moo jugee ci waaw ci jur ji de bi ci génnee tabaski nag mooy xar waaw su fekkee amoo xar nga ut béy de moo ci topp su fekkee amuloo béy nag moo ci topp su fekkee amuloo nag nga soog a ut gëlëm de waaw dana nekk bu duuf dana nekk kuy de yaa ngi dégg de lépp loo xam nag yaa ngi koy génnee tabaski xar mu am béjjén moo gën bu amut béjjén de naa ko def nag mu ne lu gën a néew ci lu nag moom ci loolu mooy waaw ak moo xam ne nii waaw tëng rek mu ne nag mooy bu am waaw dégg nga euh, dégg nga sën am waaw benn at de wax nañ ne mooy bu am juróom juróom maanaam fukki weer am ñu wax ne déedéet mooy bu am waaw buy waaj a dugg ci at de wala mu am at ba waaj a dugg ci waa atum ñaareel yëpp ay uti la ñu am ci borom xam-xam yi de waaw su fekkee nañ ne bëy la mooy bëy boo xam ne am na ñaari at ngay génnee tabaski def di dugg ci ñetteelu at def su fekkee ne nag la moo ne nekk nag boo xam ne am na ñaari at di dugg ci atu ñetteel su fekkee ne gëlëm na nag mooy juróom boo xam ne am na juróom-benn at def tere nañ nag ci chariat ngay génnee tabaski xar moo xam ne dafa laaj de boo xam bëjjën bi dafa damm wala dafay loof wala waa lompañ wala muy soof wala bët bi patt wala muy nàcc deret yooyu yëpp waaw wala mu nekk bu tax yooyu yëpp waaw dañ koo dañ koo tere rek naa ko def nag mu ne ba tey li nga xam ne mooy bës bi muy bës bu màgg boo xam ne muy waxtu nga xam ne ci lañu war a waaw génnee xam tabaski ci limaan bi war na ci moom bu jullee ba pare mu génn rey xaram te ko rek ndax ñu a ne ndax gannaaw bi imaam reyee nga mën a rey moo tax bu jullee pare rek daf ko war a génne ci biti rey ko rek mu ne nag war na mu génnee ko ci julleekaay bi fekkee deful loolu nag dégg waaw ñaari wax wax na ci ñaari borom ñaari xeeti xam-xam fekk na ci ñi ne daa jaadul ñi ne aayal lañ ko ñi aayal lañ de def ko rek mu ne nag waxtu nga xam ne moo mujj dégg nga ci ren di tabaski mooy waaw bu jant bi di waaj a soog ci ñetteeli fan de maanaam ku mën a génnee tey noonu bi génnee tey sa doon tabaski ku ko mënul tey bu la neexee même boo ko rey suba bu mujj bi laata jant bi di sore képp koo xam ne nag da ngay génne tabaski nga reyal ko sa bopp yow moom mooy sunna loolu mooy donte jigéen la sax su fekkee nag ne da uutal dégg nga ku la ko rayal ba tey su fekk mën nga ko ba tey aaya wuñ ko rek waaye li gën mooy nga rayal ko sa <clears throat> naa ko def nag mu ne nag su fekkee nag ne amoo ko amoo la utal ne la yéeneen lépp da nga bi nag ki lay utu boo yéenee wala mu yéeneel la kooku mun du jël dara ci eh, lim rek di def xam ne maanaam daf lay ragal rek waaye du ci jël dara loolu nag rendi bi boo koy def pàcc bii jël rombale ko ci put bi ànd ak teey waaw de waaw te gaaw te dafa jëloon xar mi su ko defee nag da jublu xibla waaw su ko defee nag da waaw jàng kabar mooy wax bismillaah nga tudd yàlla moom la Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam doon dayee xaram tudd yàlla su ko defee nag nga baat bi de mu ne nag daganut nga jaay dara lu aju ci xaram tabaski de jarul dajalul ci luñ leen dagale ci dara de wala nga weccante ci dara jëndee ko leneen de mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waaw génne na xaram tabaski ñaari xaram kuy tabaski la jël ñaar yoo xam ne yu mag lañ waaw te dañuy seen couleur ñuy dem ci ñuul leen gën a def de mu ne nag sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee ñaari xar ko a tedd wa sallam xam koy rendi ana lu mu wax daf ne bismillahi allahu akbar allahuma ala na ñuy def yi mu ummati dina tudd yàlla rek moo màgg allahu mu ne benn xar mii rey naa ko reyal naa ko sama bopp man muy sama xaram tabaski beneen xar bi reyal naa ko képp koo xam ne ci sama xeet ëllëg amoo doon tabaski man man naa la ci ragal euh, ut naa la ba ba ragal la rek moo màndu kooku moo yonentu a wóor moom suñu yos noonu la rayee xaram de sallallahu alayhi ne ci xadis jëlee ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ngeen xam ne seen da waaw ren yi xar ngeen rey ci tabaski waruwaay la comme pont la bu ngeen di jaar ëllëg pour dem aljana de solo nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa kenn koo xam ne dana jël xalamtoos ne deret day sotteeku ak der ba ak karaw ya ak la ci am yëpp dana nekk ay yiw yoo xam ne dafay fees dell ci sama ndax ñeel la yomal qiyaama de solo jëlee ci Ibn Abbas muy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu waxu mu ne da nga amul benn sarax boo xam ne moo gën sarax gannaaw jokk mbokk bu gën rey deret yi bu suxu gi de yéen nañ ci xadis yonent bi sallallahu alayhi mu ne yàlla tabaraka wa taala dafay yi ci bésu yi ay junne yi junne ay kàccoor yu bon ak defkatu waaw ci bés bii de baal leen rek ngir mbaaxam waaw ngir bët bu malaaka yi dañuy seede mbaal googu de mbag googu ngir ñu seede màggaayu yàlla ak màggaayu njëgal yàlla ci iidu tabaski de mu ne nag sarax ci waaw ñaari iid yi mooy iidu korite ak iidu tabaski moo gën nga ci loolu de ci juróom-ñaar fukki daraja maanaam bés boo mën a saraxe baax na waaye bés boo saraxe ci tabaski ak korite dañ la koy fulal juróom-ñaar fukki rek yàlla mooy fulal ku ko neex de so sopp nañ nag waaw ngay wax allahu akbar di tëj biir waaw dale ko ci tusbaar waaw tay bii bésu tay bii da nga ba ci bésuñ waaw da nga ñeenteel bi de gannaaw julli bu nekk sopp nañ imaam bi ak ñu doon bi ñuy wax allahu akbar baat beneen mooy allahu akbar allahu akbar bu ne nag sopp nañ ci bés bi sunna la waaye du waree sunna la nga yéexal dog de maanaam booy julli si nga bañ a lekk ba àgg nag boo waaw tuddee ko boo demee waaw nga soog a mu mel nu or la ci diggante bu gàtt waaw liñ ci wax mooy lan mooy ne boo ko defee dafa mel ni da ngaa or juróom-benni dinañ at boo xam ne da ngaa julli si lekkoo ba julli ba pare dem soog a lekk nga yéene woor waaw diggante boobu rek waaw yow noonu la su dara sama de su ko defee mel da ngaa woor juróom-benni waaw dégg nga junne at de. mu ne nag dundin guddi gi waaw ñu sopp la de ci jaamu yàlla nga sangu ba set jullit bu nekk nga waaw da nga sol yu rafet nga def parfum sa yaram da loolu war na képp koo xam ne dafay julli de waaw koo xam ne tamit julli suba sax waaw nga sañ ci bés bi sol yu baax yu rafet te laal parfum de bëgg ci bés bi de mu ne booy dem ci julleekaay bi nga dox dem mbaa nga war su ko defee booy dellu dox bi nag moo gën booy dellu tam yooyu yëpp da ngay kabaarle booy dem noonu ba imaam bi ñëw su ko defee ñu taxawal julli yi buñ jullee bu pare képp kuy dellu nag yoon li nga jaaroon di ngay ñëw sopp nañ nga jaaroon beneen yoon boo ñibbi sa kër de ndax lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu daan def bu jaaree ci mbedd dem julli ba pare bu paree day xool beneen mbedd bu mu jaar doon jaaree de sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag na ngeen ragal yàlla yàlla mi nga xam dimbali koo kuy wax ne dimbali ma yàlla ak mbokk di ngeen dimbali koo laaj sarax wala laaj ndimbal dimbali ma ngir yàlla jàppale ma ngir yàlla yu baax yi yu baax di ko bi ak yeneen yi meer ñooñu ñëpp yu baax yi jël ma di sànq ak yeneen mu ne ak képp kuy sàkku ndimbal rek nan ngir yàlla yàlla mu ne na ragal man yàlla ndax bu ngeen soxlaa man ngeen di tinoo ci jaam yi bañ defal leen man na ngeen ma ragal yàlla de man maa ngi leen di fuglu lépp lu ngeen def xam naa ko de tabaaraka wa taala yàlla mu ne uskurullaaha kasiiran la'allakum tuflihuun na ngeen tudd yàlla lu bëree bëri bëri ndax ngeen taxe na ngeen dundale seen alal ci yoonu yàlla na ngeen xam ne li ngeen am dafay jeex tàkk ci man li ma am man yàlla waaw la fa yàlla du jeex de na ngeen sàmm julli yi juróomi ci mbooloo te am rek laab de na ngeen jëf lu yiw ndax yàlla may leen ngeen taxe de رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى